Eh, noo ngi leen di nuyu nuyu lislaam nuyu yi di asalaamaaleykum taala wa barakaatu gannaaw nuyu yooyu noo ngi ànd ak yéen nga xam ni mooy al Akhdari wu Cheikh Abdourahmane al Akhdari tey de incha allahu noo ngi fas yéene ànd ak yéen ci fasal lu am solo wile wudu moo tamit na fasulun lii aji fasale ji wax la maanaam mu ngi woon ci fasal wax xam ne mu ngi la doon fara fànceel ana lan mooy njàpp ak lu ci aju mu noppi ci loolu nag di la teqantal ne noppi naa ci njàpp maa ngi yow ci li nga xam ne mooy nawaqidul wudu gannaaw ba nga amee njàpp ba pare ana yan ñooy yàq njàpp moo tamit na fasul lii aj tàqale ji wax la maana xabaru mubtada buñ fa xasafee nattaleem haada faslun lii ak fasale wax la nawaqidul wudu luy yàq njàpp nawaqidul wudu luy firi njàpp nawaqidul luy toj njàpp maana ñett maana yooyu yëpp loo firi mi wuute wuute teru maana yi benn la luy yàq njàpp luy firi njàpp luy tañ njàpp maanaam firi mu na wante seen maana yëpp benn la kon ndongo yi buñ la ko firilee eh, ci ñett anam yëpp maana yi bum la jaaxal benn la nawaaqidu wudu luy yàq njàpp ahdaasun ay toja nga ca ahdaasun ay eh, toja nga ca wa asbaabun ak i ay sabab maana asbaab mooy lu koy waral ahdaasun ay toja ca wa asbaabun aki ay sabab ahdaasun jamu hadas wa asbaabun jamu sabab mais fal ahdaasu yi koy toj albawlu mooy sanguwaay wal xaaxit ak dem joor والريح عن دلول والمزي عق مزي والودي عق ودي مزينا مي أميكي تغوي ذكر وانتي ودي مي أميكي وخمانه وو مك ودقر غنا ومطورين نقب نطبي يوي مي أحدازي بدي مكي برو ماشي ماوي نت تنكنا كي تنكو رفت ايه نه Eh, ñett yi mu ngi jóge ko ci kanam wante ñaari mu ngi génne eh, ci ak mbuntu suuf ñett yi génne ci kanam nag mooy albawlu wal ma wal masi wal waddi ñaar yi génne ci mbuntu suuf nag mooy alxayit warre noonu la borom eh, Abdul Bari al Ashmawi noonu la ko indee woon ci téeram woowule wal asbaabu sabab yi nag yi koy sabab annaw moom mooy nelaw ak thaqil yu diis nelaw yu diis yooyu nag e, boo demee ci e, Abdul Bari di al Ashmawi e, naka indi na fa séddalu nelaw ci séddalu bu rafet nee na nelaw aji nekk la ci ñeent séddalu ko muy نلاو يقدو نلاو يقمن دفو قد ديز دفعي يقن جابو يقات تديز دفعي يقن جابو يقات تواف كوكو دو يقن جابو يقود تواف كوكو سبن برم جابوات نيلو سدلي فالنوم هو على أربعة أقصاب طويل ثقيل ينقض الوضوء غصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا غصير غفيف لا ينقض الوضوء طويل خفيف يستعب من الوضوء نقول لك شي عبد الباري آه، آه، نقول لك إن شيء العشماوي من فنو من الوديوم على أربعة أقسام نكل نينت آه، قد طويل يقود ثقيل تديس مو عن لا يقود تديس مويلا وإن لو قمني ndongo waan ci néeg wi jàpp ak télévision di seetaan wante nit dugg na bee jël na commande wi ci yoxoom fay télé wi génn te yëgul ko loolu mooy nelaw yu gudd ci diis kooku yan xudu dafay firi dafay yàq alwudu njàpp xasiru yu gàtt saxiinun te diis kazalik yan xudu dafay firi alwudu njàpp aydan ba tey xasiru yu gàtt net xafifun te oyof kooku laa yan xudu du firi alwudu njàpp nee na yu gàtt te diis dafay firi jàpp amaa yu gàtt te woyof na mooy ne la yoo xam ne ku dugg da nga yëg ne dugg na e, kooku du firi njàpp yu gudd na te woyof kooku borom sopp nañ moo jàpp moo tamit wal wala asbaabu sabab yi yi xam ne mooy waral ak njàpp kooku ànnaw mu mooy nelaw thaqil yu diis wal igmaa ak xëm te IRMA eh, bokk na ci yi nga xam ne eh, sabab yi waral ak tey ak njàpp la ndaxte mu ngi bokk ci yi nga xam ne mooy muur xel mooy dañëpp xel wal sukkur ak mandi wal junun ak saddam jinne wal xublata ak fóonante eh, yëpp mu ngi bokk ci yi nga xam ne dafay waral ak njàpp wala am sul mara ak lal jigéen alam su kooku woo demee ba léegi alxaj Mahi mu ngi ko séddale ci ñeent ak xaaj nee na wa bil amsi wa ala arbaati aqsaamin in qasada alladha wa wajadaha fa alayhi alwudu wa in wajadaha wa lam yaqsidha fa alayhi alwudu fa alayhi alwudu إيه، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه فلا وضوء عليه كنت مؤيد يقمني سدل كنا جلال من الله الجيند إن قصد نيم جبل اللذة لذة بنيخ ووجدها تم أمكجة آه، قاجو نكوانغو فعليه warnog آه، الوضوء wudu وإن وجد بو أمي بنيخ ولم يقصد تجبلو كشي أجزبسيون بي ولا بوزيسيون دوت أم بنيخ وأنت أم نكجة فعلي ورنك الوضوء نجاب أم جمك أم mooy waral mu jàpp jinet way qasadaa bu ci jubloo ak banneex wala mu jaar te amul ko ci faale war nag alwudu njàpp bu fekkee cause daal bi muy laal jigéen mooy banneex wante malgré amul ko ca duñu wax ne njàpp waru ko cause yu taxoon mu koy laal eh, mooy war moom mooy koy yàq nag wa in lam yaqsid bu fekkee jubluwu ca lazata bànneex wala mi jidaa te amul ko ca kooku falaa wudu ali du ko ci war noonu la ko borom alaa fii nii la ko indi wa bi lamsi wa ala arbaati in qasada lazata ووجدها فعلي الوضوء وإن وجدها ولم يقصدها فعلي الوضوء وإن قصدها ولم يجدها فعلي الوضوء وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه متجا عبد الرحمن الأخضري دوغني والأسباب السبب ورنجبو النوم من لو الثقي الديز والإغماء أقم والسكر أجمندي والجنون أكسدم جنة wal xublatu ak fonante wala am sul mara ak laal jigéen mi ne in xasada bu ci jublu àlla sata bànneex ak wajadaxa te mu wala mu am ka ca njàpp li yàqu na kon nag moom daanaka benn xaaj rek la wax wa ma zakkara la zakkara bi baatil kafi ci biir tënk tënk yoxo Eh, bu fekkee zakkara ci dafa eh, tënk dafa laal zakkara ci bilaa xaayil amul benn digale kon nag njàpp la eh, bokk na ci waral sabab ak yàq njàpp atawuma zakkari bi baadin kaffi aw bi baadin aza wala ci biir waaroo moom kon nag ba léegi njàpp li yàqu na bu fekkoon yéen ak ñu tiim ci écran ko noonu leen wan baatinul kaffi ak baatinul asaabi bi ñu bari mën koy xam wante malgré ni ci bëri aman na xam nañ loolu maanaa daal luy yàq njàpp mu ngi séddlu ko ci ñaari xaaj mu ngi séddlu ko ci ñaari xaaj mu axdaasun wa asbaabun axdaasun ay tojanga ca wa asbaabun ak ay sabab kon ay firi njàpp mu ngi séddlu ko ci ñaari xaaj eh, ay tojanga ca أجاء السبب معنى أحداث وأسباب bu ñu ahdaas daal mooy lépp loo xam ne génn na eh, lépp loo xam ne bokkoo ci benn ci ñaar génnuwaay yi eh, ci anam boo xam ne anam ak wér la anam wuñ baaxoo ñaari génnuwaay nag mooy alqubul wa dubur mooy kanam ak ginnaaw te loolu mooy sanguwaay mu limal eh, ahdaas Eh, ak dem wanag ak ngalawal eh, ak masyu ak wadiyu am ñuy wax na al wasyu eh, sabab bi nag mooy yi nga xam ne moo koy waral kooku mooy xëm ak mandi ak saddam jinni ak mboolem loo xam ne dafay muur dafay muur di dëñal xel ak di ko muur loolu mu ngi bokk ci sabab yi nga xam ne dafay waral ak yàq njàpp naka noonu bokk na ci sabab mooy fóonante ak laal jigéen ci jublu ak bànneex wala mu am ko ca ci lu ak jubluwaay dafay yàq dafay mm, bokk na ci sabab yi waral yàq njàpp naka noonu bokk na ci sabab waral eh, njàpp mooy laal zakkara ci biir tënk wala ci biir waarawam ci lu benn ak xaayil bi maana eh, tënk yoxo ba wala wiiri waarawam ba amul lenn lu dox ci diggante zakkara sa ande bu fekke dafa am lu mur ci muray muuraay waddoo lal kaw zakkara sa am hayl wu ci dox kooku dara ci amma xadas alquran yakhluk nag reng reen wax ci suratul maida ay siis aw ja axadu minkum min alghaib aw ja wal aw ja dikna na ken minkum ci min alghaib koku fi ayatul wudu ci ay njàpp lay wax amma xaayit kooku kinaaya ci ak faj aajo rek bu ñu xaayit kooku kinaaya la ci faj aajo eh, min minam bayaan laala moom sanguwaay la ak dem joor ak lépp loo xam ne eh, eh, ak lépp loo xam ne dafay génn benn ci ñaari génnuwaay muy alqubul wa dubur yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni doo buñ nangu mukk na ci yéen ndem xëj bata mu jàpp ko Buxaari ba ko génne la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda amanat génne ak masiyu te wax naa la mu ngi amé ci zakra ko kooku àtte moy da fay ra zakra ci lépp lépp kooku xadiisu sayidna ali karamallahu waj ah, moom dafa nekkoon ko xam ne rajulan mazaa mu am kersa laaj yonent bi alayhi mu wóotal doomam eh, ci palaasam digal miqdaad mu laaj yonent bi loolu yonent bi ni lu ko atte wonee dafay sa lépp wante du raxas ñaari wéy yoor yi كوكو حديث سيدنا علي كرم الله وجهه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ كوكو رواه الستة أمانة دفع am benn góor woo xam الموت حضر الموت la jóge ko ñëw ci Aba Hurayrata te tuddoon noonu kooku kinaaya la rek wante mu ngi tudd Abdurahman ibn Saxr kooku bayna qawsayn e, jamono jaahili mu ngi tuddoon Abdu Shams ba mu tubee yéen tuddee ko Abdurahman ibn Saxr ad-Dawsi dafa am benn góor wu jóge ko ci xadrat Mawud ñëw laaj Aba Hurayra mal xadathu yaa Aba Hurayra قال فصا او ضراط كوكو بغاري مسلم جننك ومو ما أدراك ما الفصاء أو ضراط ما عملوا الميلان بني فصانت ما ينقل وقم دفاي جن جي كوتي بندم سوف وانت دو ديك بين الصوت دعم بين بري بني ضراط نت ما نقلوا وقم دفاي جن جي كوتي شرجوا وانت دفاي أم بري دفاي أم الصوت آه، loolu mooy baynal fusaaun aw duraat eh, abu urayra ba ko góor googu laajee ko mal abasu mi ne ko qaala fusaaun aw duraat eh, nelaw yu diis ko kooku min nawaaqidul wudu dafa bokk ci yàq yàq njàpp ji dina ma wax la ko eh, wute naag wu woyefoo ngir xadis yi ñëw xadisu ko Ali karamallahu wajha wax na nini sala nina al ain wika wika usahi faman nama falyatawadda ko gay ibn majah abu daud mo ko genni amma al hadith ko anas ibn malik radiyallahu anhu neena nekkoon na saaba ak yeneen tey sallallahu alayhi wa di muñandiku di xaar di muñandiku salaatal isha wu mujj be bee seen dal di jëng topp ñu jug julli te jàppuñ متمين بخلاف بخلاف الخفيف وتنا نلا يوقف يقنب كان نكون أصحاب الرسول يعني كان نكون أصحاب الرسول الصحابة ينتهي صلى الله عليه وسلم ينتظرون دي قارن دي على العشاء جاء على غير ومجي من صلاة العشاء كوكو من صلوات xams بني العشان al ashaa وقت القضاء mooy وقت الرير mooy الرير القضاء العشاء بفتح العين أما بالكسرة كوكو من صلوات القمص من حتى تخفق حتى تخفق معنى بمجنج رؤوسهم ببسين ثم يصلون توبن جلي وانتي ولا يتوضؤون تي دنيا جاب كوكو مسلم جننك ترميز جننك أبو داود جننك ولا زمن أما حديث ابن عباس نت إيه، إيه، aada yi nga xam ne dafay indi ak tegtal ci nelaw yu diis dafa lay wax ne min nawaqidil wudu min bi xilaafil xafif aada yooyu la lay leeral tuuti rek من ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله nee na lay déet ala man ci nga xam ne naama nelaw na saajidan mbirum aji sujud wudu ak njàpp hatta yatajabata mu tëdd fay na nag moom ida tajabu tëddee ne istarxat ba tàllal ko mafasilu ay ciram kooku boobaa nag njàpp dal di koy war amaana kooku mu ngi sababee ci ak xam ak mandi ak sadam jinni kooku mu ngi bokk nawaqidul wudu ndaxte muur ñeel xel wala ak lu mel ne ak nelaw yu diis wala lu gën a jotal loolu kooku olama yi nañ ci ni min min nawaqidul wudu amma fon ak laal jigéen kooku wax na ci xadis ibnu Umar radiyallahu an xadis la waxam ñoo na ci muwatta nee wa qiblatu rajuli imraatu wa jassu bi min al mulaamasa fa man qab fa man qabbala imraatahu aw jassaha fa alil wudu mi ne wa qublatul imraatu soxnaam wa jassu ak jënjëmam bi yeddi ci yoxoom kooku min al mulaamasa mu ngi bokk ci mulaamas képp ku foon soxnaam wala mu jënjoo ak moom ci yoxoom fa alil wudu njàppoor na kooku Malik indi na ko ci Muwatta القرآن من سورة المائدة أي أسيز أو لامستم النساء أما لا تذكر كبير التنق ولا كبير وارمم كوكو من أسباب نقد الوضوء كوكو حديث سيرة بنت صفوان رضي الله عنها ممكن من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا يعني كيف بكل حال نذكر بمجل بتمجب رواه خمسة ومالك والشافع وغيرهم وانتي biduna xaayil amaana ixtilaaf ñëw na ci laal jigéen ak péem am nañu wax ne jigéen bu laale péem njàppam yàqut yàq yàqu na am nañu wax ne ah njàppam yàqut de loolu mu lunkal waaroom wa ca biir péyoo ci lay njàppale di yàqu ne wa qiila in altafat fa alal wudu wa illa fala kooku حديثك عمرو بن شعيب جليت بايم بايم جليك مامم رضي الله عنهم أيما رجل مض فرجه فليتوضع وأي امرأة مست فرجها فليتوضا أحمد وإسحاق البيعقي جنين لول لولا عبد الرحمن الأخضري دي يعني النواقد وضوء اللي يقن يبو معنا فصل لي أجي فصل جي وعلى نواقد الغضول هي قنجبو كوكو آه، مجسد لك جنيار قاج أحداث أي تجنجة وأسباب أكي أي سبب فلا أحداث تجي البول معي السنغواي والغايد تي وعنا الغايد كنا إلى تفج حاجو لا لم هم السنغواي ولا دم ونك وريحو أنجلوال والمزي أك مزي وعنا لمني أميكي تقوى الزكرة والوديو ñuy jàng wal was yu ak génne was yu kooku wax wu dëgër mag moo koy génne ca mujjante ak sabab wala asbaab sabab yu nag am na mooy nelaw te wax naa la borom achima wi na ko ci ñeent ak seddale ak thaqil yu diis wala xama والسكر اك ماندي والجنون السدم جن والقبلة اك فوننت والعمز المرء اك الجين ان قصر ديم جلونة لذة بنيغ او وجدا ولا مو عام كتش جلود اك جبل وما تذكر اك لا تذكر كوكوم نبوك جي اي سبب جاب ياق جاب wi batan ka fi ci bir tem wi batan sa wala ci bir waro nappi ci lel o ma chak kep ko fi xaadasin ci tëj wajaba war naa la ci moom alwudu njàpp ndaxte yàlla kenn du ko jàmm ci ak sikk wóor na ko man de amoon am naa euh, jàpp woon na wante muy sikk euh, njàpp ak tëj wi ban moo ci jiitu muy sikk sàkk ban la ci man de wóor na ma jàpp woon naa muy sikk na jàpp ak tëj wi bu ci jiitu ñaaka dama nga jàpp jaat ma dooma shakk képp ko sikk na masala ngoog benn masala képp ku la laaj masala am kuy sikk ci ak tëj man am naa njàppoom wala dama eh, eh, wala aw ma ko ñu ne ko dama nga jàpp ji wajaba alil wudu war na ko nga ba foofu mi na àddee ah, eh, illaa lu dut an yakuna lu mu nekk moom koo kule di aji taqoo mu waswise ak jax ak jaxal Eh, feebar la boo xam ne lu waay eh, def rek dina sikk def naa nangam wala def ma ko kooku attee mooy falache te benn xeetu ak yàq njàpp du ko war ci loolu le moo tamit illaa lu daan yëkkanu mu nekk moom waa jooju daa ji mu wax suy sa njax-jaxal kooku boobaa di dara aari di ko war minaa way jiw dina war na غرج ذكر رغ ذكر كل لب رغ ذكر لب دنكور من المزيد كما زيت جيتنا ما على حديث يقمني زين علي موكو اندي إيه، مقدعات لا جنكين يخذل الذكر هو اللي توضع نفعي رغ ذكر همز اللب توب مجابو كوكو لا يخذل درغ الانذين نعرف ويوري من قال ببالي يعني وقع المزيمون لي مزي من أول مزي مزي دي وهم الماء النقل خارج بدع الجن عند الشوف بنيا معنى تقوي ذكر الصغرى وندو بنيا وقمن وندو ل مي سبب وتشكل الجين ولا قول ولا لول متنين قول الدال نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء qolli warla qol bu amere نظرة فابتسام منجنعم من بعمي فسلام نيعم نوي بعمي فكلام وقم وق بعمي ف فموعد جوان دران يعم جوان دران بو أمي فلقاء ودجي أم شاعر بني بدجي أمين كن كنك قول لك لك نرى ورقو وضمن والمزي مسجد ومم الماء ومي النخل وقمنا الغرج برأي جنة أنا شوف بنيغ الزغرة ونو بني ونو ميسابه بفكر جقلات جيين أو نظر ولا قول أو غيري ولا لين للول معنى جب وعن سكنة نكم دي عجي تجلي مقام تجو دولة ndax نعم، aji nekk la ci wala muy sikk wala nekku ci wala muy sikk ci ak laab ak toj ànd ñoom ñaar ñëpp maanaam muy sikk ne eh, laab geeg toju wu ci njëkk wala bu jiitu ci ñaar yooyu kon li wóor daal li atteem mooy ne faali yi an yatawadda dafay war mu jàpp jënet ngir toxu ci sikkam woowu jëm ci yaqiin ndaxte xadis ñëw na ci waa joo xam ne dafa sikk ci ak julleem yéen ko demel nga jokk ji nag kon nag loolu dafay wane sikk daal képp koo xam ne mu ngi sikk ci nangam na jógee ko ci sikk ko jëm ci lu wóor إذا شك أحدكم في صلاته فليدري اثنين صلى أم ثلاثا فليلقي الشك وليبني على اليقين كوكب يقينك inta Isra wax ma ci wax joo xam ne dafay xëyaal ak toj te fekk moom mu ngi ci ak jël mu déglu ko yonent bi sallallahu alayhi ne ar-rajulu yuxayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi s-salaa qaala laa yansarif hattaa yasma'a sawtan aw yajida riihan kooku rawahu jamaa illa Tirmisi ñoo ko solo kon loolu mooy fasal yi nga xam ne ñëw na ci nawaaqidul wudu li yàq njàpp moo tax may wax ne nawaaq faslun li aji fasal ji wax la wudu li yàq njàpp كوكو أعدازن أي تجنجة وأسباب نك أي سبب فلا أعدازو تجي البول معي زنقواي والغايت أقدم جير وريهو أنقل والمزي أك مزي والودي أك ودي والأسباب السببينت معنى يقوي ورل أنه ما إن لو الثقيل الديد والإغمع أقم والزكور أك مندي والجنون أك سدم جن والقبلة أك فرنتي ولم زمر أك لال جين إن قصد دم جبلنا جاء اللذة بنيغ وجدا ولا ما أم كجا جلد أك جبل وما تذكر أك لال ذكر في باطن الكفي بير تنق نبوك جي ورل أك يقنجب أو في باطن أصاب ولكي ومن شك képp ku sikk ne fi aadan si tëj kooku waje war naa li ci al alwudu njàpp nga ne ko ba foofu mu ne illaa an yakuna lu mu nekk mu wasu jan miruhu ma jirta ku ag jaqjaqal ko ku falaashaa didara caliidi ويجيب دنور على كيمهم غسل زكري رغز زكر إذن نعم بعير قلباتي غسل بني غسل معي سنج زكر مانا هو خجوج معنى بو يقنا أي غسل معنى معي رغز زكر كل لبم من المزيكي مزينة آه، واتيم معي مرغز زكرام لب soo ko jàpp ju nag wala yaxas lu du ci ene ñaari way yoore ya du ko raxas nak wal masjid masjid boo bu bëggee xam wo mom al ma'u nakhl al ghalib da ji génn indi shaw bani al sughra wu ndaw bi tafakkur ci sabab galaat jigéen aw nasarati wala qol aw ghairi wala lenen lu dul من فصل لي أجي فصل جي وخلا لا يجوز دغنت لغير متوضي تشكو يرد نجابو Eh, salaatun muy julli wala tawaafun du sàggan muy wër kaaba gi wala masu nusxatil quraan al karim du sàggan muy laaj laal xaaju al quraan wu tedd wi wala du sàggan mu koy laale muy laal der laa déet bi ci loxoom ci yoxoom wala bi oddin zaggan ak bënt wanaax yi ak unro yooyu nga nekk ba faw lu may ak xaaj ñeel ki nga xam ne aji jàng la eh, dagganut ci ko yor njàpp wala mas muy laal eh, lawxil quran al azim muy àlluwaga al quran wu mag wi ala wudu ci ko yor njàpp maana eh, dagganut ci ko yor njàpp muy julli daganu muy wër ga daganu muy laal xaaj alquran wu tëdd Eh, daganu muy laal der wa eh, moo du càggan mu laale ko ak baaraamam wala mu laale ko ak bant ak yu nuroo yooyu lu may xaañ na koo xam ne aji jàng la ci kam am ndonga daara wa nappi na ci loolu wala masulahul quraan al azim du saggan eh, daganut laal wu mag wa ma ne ko ci kan mi naa ala xeer wudu ci ko yor njàpp ba foofu mu ne exception bi ne illaa lu للمتعلم ديال اجي جانج في كي او معلم ولا سرين دارام ولا جانج لك كتب بيغا خمن يصحح ما كيير لل لما جانج من هو نبني تشلول امانه غوني اك كومزر ñoyam ci atté lal kamil alquran kenn daganu ci ñoom ñuy laal kaamil alquran lu dul ci ak njàpp laa yamassu illa almutahharuun wax sax bii gune fi masal alquran ci laal ak al alazim ci laal ak kaamil alquran alazim wu mag wa kal kabir ndi ki mag ñoo yem ca bakkar wa wante nag bu fekkee ne ku mësër ki moo wax gune gi ko jottali ma kaamil alquran bi kon nag bakkaar bi dañ koy askane ci ki nga xam ne moo ko jottali kuloo kaamil woowule ndax dañoo yem ci atte ci laal ak kaamil alquran on tamit wala isma bakkaar wi ala munaawilihi dañ war na ki nga xam ne moo ko jot likuloo noppi na ci la man sala képp ku jule ne bi xëyri wudu ci lu ak njàpp ko ga amidan mbirum ma ji tey ko gannaaw ba nga xamee ne جدنا جي برم برمم مي سبحانه وتعالى يعني يا أي الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مفعين نقل وي خامني إيجابي لا ديغل ورلا جوغي كو برمم ولا مقتل ليغا خامني موي حرم و te mu ماي mu bàyyi jëf jooju ngir doyadal wala woyofal ko kooku dañu àtte ci moom ak àtteeg yéeféer ak ku ñu ci ëllu xibla wala iyaas billah am la yoo xam ne moom sallaa képp ku julli na bi xëyri wudu ci lu ak njàpp waa mi mbirum maa ji tëju kooku foo moom ci moom àtteeg kaafir yéeféer wala iyaas billah maanaa daal bépp jaamu yàlla woo xam ne mu ànd ak ay charta kooku xaraam na tabbi ci jaamu yàlla woowu njëkk muy matal yooyu la charte loolu moo tax nag dafay xaraam ci mukallaf bi muy julli ci loolu ak laab naka noonu bépp jaamu yàlla woo ne laab nekk na ci di lu mel ak tawaaf lu mel ne laal kaamil al Qur'an ak xaaj ah, ak laal àllu alquran ak donte ak bant la lu may koo xam ne aji jàng la aji aji la ak maître mu koy jàngal muy sëriñ daaraam di ko wéral la jàng kooku ñi ñi sett nañ leen ci aji yemoo la ci xaraam ak laal kaamil alquran gune ak mag أكو مزر يمين يجب قيم أما كيبو قمنا أجي تيلي مجلي تلت أكلاب جنابو مدقي وخبرهم فيهم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كجزرة المايدة عيسيس mu dal di foye bi ndigal li nga xam ne al ijaabi la ndigal lu war la jóge ko ci borom bi subhaanahu wa taala mu xotti wi la xorma e, ak bàyyi jëfee ko ngir doodal ak woyafal kooku ku ñu àttale ci moom ak yéeféer ku ñu dàqale ci ëllul xibla wala iyaasu billah wuute naa xam ne dafa teraw ak jàpp wante pas na ne jàpp euh, la wute na ak loolu amma xaraamal julli wu ñu boyal lu ñu boyal la ci koo xam ne ñe aji toj la la moo xam euh, farata la wala naafila julli ak néew en do alayhi salaatu salaam wax لا تقبل الصلاة بغير الطحور ولا صدقة من أغلل حرام الطواف تلو راك نجابو كوكو حديث عبد الله بن عباس موكو يخل نبي انتو صلى الله عليه الطواف الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير كوكو ترمجي دار قطعي جنني ninayamtanin awaaf jilile awaaf warkaabaga salax jilile lodhanaya dhaganalna ci tawaaf wax bu fekkee aji tawaaf ji daje na ak mbokkam muy saafowanteeg moom kooku wax ji dagan mi borom ne képp kuy wax eh, bu mu wax lu di yiw أما حرام كامل القرآن ولا قاج ولا ألو القرآن كوكو أبو بكر بن محمد بن آه، آه، آه، محمد بن عمرو بن حزم مجلتي بهم بهم جلتي مام نبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا كان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر نبي نتفق بن benn risaala jëm ci ahlu mu ngi bind ci biir lettre ne laa yamasul quran illa taahir kenn bu mu laal alquran lu dul ci ak laab kooku an wa Daarul Qutni wal Bayhaqi e, génn nañ kon hadiis Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sa qaal laa yamasul quran illa taahir kooku al-Bayhaqi moo ko génn kon loolu mooy فصل ويلي ميقمني ويعني فصل اللي أجي فصل جوال لا يجوز لدقن لغير متوضين جكو يرن جب صلاة جل كو يرن جب دقن جمومي جل ولا طواف دقن جموم مير كعب ولا مص نسخة القرآن الكريم دقن جموم ميلال قاجة القرآن ومقوي wala jildi dagan si moom laal der wa laa déet bi yeddi mu koy laale ak yoxoom aw bi oodin wala bi ood du mu koy laale ak bant wanaa wi ak nuró yooyu lu mel ne jël ko def ko ak saag ngab ngab bu saag wa wala def ko ak mbuus ngab mbuus ga yooyu lu mel noonu le dafa arab illaa jusan lu may xaaj lil mutaallim ñeel ki jàng eh, kooku lañ ko may ولا مص لوحي القرآن العظيم دغن اللوح القرآن هو مجوي تكن على غير الوضوء تكن يرجب أنا كما فو ولا إكسبسيون إلا لوزي للمتعلم نيال كي فيك اللو القرآن ومجو أو معلم ولا جانغ لكتمي يصححه ديكو ويرلل لم يجانغ نبنجل من صبي قدي في مصر مصحف القرآن العظيم كلا الكامل القرآن هو ومجوى كالكبير إنك مج نجيم أتي والاسم بكار على منابلي ورنجكوكو جوت لكلو مملنكوي أجنت wa man salla képp ko julli mu atte benn indi benn masala képp ko julli na bi xëyri xudur ci lu da ak njàpp maanaam képp koo xam ne ak julli ci lu benn ak laab gannaaw ba mu déggee waxe boromam wii kooku eh, muy fayee atteeg borom yi nga xam ne atteeg ijaab la jóge ko ci boromam muy xotti bi la xarma bàyyi bàyyi jëf eh, bàyyi ak jëf ngir doyatal ak woyefal kooku ku ñu àttale ci moom ak yéeféer ko ñu dàqale ci ëllu xibla moom lay wax ne waman salla képp ku julli na bi xëyri wudu julli ak njàpp amidan mbir mu aji tëj ko kooku foofu moom kaafirun eh, jëf na jëfi yéeféer wala iyaasu billah yéen yàlla musal ñu ci lool وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ان يلم يدق توب دفنك دفلنكو الحمد اول دعوان واخرها والحمد لله من حين الى حين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Tayfirul Usul TV seen bi leen